asalaamaaleykum ana ngeen welcome to another brand new season of the Yafi Toj. waaw Yafi Toj. Yafi Toj. Gambia kii moo fi toj tojaat fi kenn du fi toj moom rek toj rek toj kese xanaa rek jeex na. season two la ñu wax it's your girl Tida DK Badji dara du fi yomba ñun ñëpp xam nañ duñ ko de defee fii si programme Yafi Toj Yafi Toj bi nag bii yoon. Hmm, nar naa saf de ndax dinañ am ay politicien ay artiste designer. so am a guitar player. ci guitar bi laay composé samay songs lu ci ëpp. sometimes ma composé yenn ci bi. so anytime bu may perform sur scène damay play ak sama guitar. képp ki nga xam ne yaa ngi si biir dëkk bi nga am fi nga toj wala di liggéey lu rafet di liggéey lu nice mun nga ñu contact. yaa fi toj. yaa fi toj. yaa fi toj. comme fu ma. jóge rek laay dellu si Gambia ñu ñor whatever we have Gambia lañ ko dee indi xoolal suñ Facebook bi Instagram YouTube fépp lañ nekkal fépp fi nga xam ne nit mu na faa gis nit rek ñu fa nga ñëw toog jàkkaarloog man jàkkaarloo askan bi ñëpp nga wax ñu fi nga toj xanaa du loolu neex na yëpp fii la moo xam ne saa su nekk comme nuñ ko dee defee rek time bi 8 fii si Voice Out Digital. Yafi Touch season two on Voice Out Digital. your hottest of the hottest TV show in the Gambia. Yafi Touch ngeen si àndandoo seen xarit seen soppe Tida Badji. Yafi Touch every Saturday ci Voice Out Digital. Yafi Touch programme bi dab seen bànneex. ngeen si àndandoo seen star yaa fi toj yow mi yaa fi toj Paul sponsor Ams Couture Bidéo Couture The View Apartments T-Trading Pericles APS International your number one choice for international money transfer to Africa yaa fi toj on VOD every Saturday déko seetaan yow mi asalaamaaleykum maa ngi nuyu ku nekk sa tur sa sant man la seen xarit seen doom day Tida Dike Badji ah, maa ngi nuyu képp ki nga xam ne yaa ngi toog di bëggee programme yaa fi toj bi comme nu ma leen ko waxee rek yaa waaw mu waral saa su nekk ñu ngi dugal si biir dëkk bi di leen andil ay naanaan di leen andil ñooxam ne ñu ngi toj dëkk bi ah, di ñaanal képp ki nga xam ne yaa ngi feebar yan na la yàlla ekkati fi nga tëdda képp ki nga xam ne tamit yaa ngi am lu la naxari yan na la yàlla sotti foofu ah, ndox bu sedda ah, tey nag ñu ngi am gan boo xam ne ku foor la si biir dëkk bi macha allah ah, ndaw la toogut benn place fu nekk nag mu ngi ci fu nekk nag mu ngi si ah, mu nekk Pa Modou Sarr Pa Modou Sarr mu nekk ah, the president of Gam Music in mu nekk tamit ki nga xam ne moo nekk manager Gibbs Voited Transportation and Logistic Company Pa Modou si lu muy yëngu si dëkk bi bëri na lum suñ bëggee lim fii lum nekk di def rek dinañ fi fanaan waaye ba tey rek duñ def dara lu bàyyee ko mu nuyu askan bi fii si Voice Out Digital Pa do you are welcome to the Yafi Touch Show. jërëjëf Tida ah, asalaamaaleykum di nuyu. Euh, di la nuyu Foss di nuyu sa crew bi di nuyu euh, yaa fi toj crew mm-hmm. ak tamit di nuyu euh, voice out digital ñi nga xam ne ni ñoo nekk Amedy Hall media bi mm-hmm. on de xara an tamit di nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk di seetaan tey yaa fi toj mm-hmm. di leen ne ah Pa Modou moo fi nekk tey so xaw ma toj tey <laughs> yaa toj Pa Pa tey moom yow yaa toj gars yi Pa dinañ waxtaan nag because si affaire music ah, gis nañ ne yaa nekk président yi gam music bi ah, te mu nekka lu foor ah, because nit ñuy bëri nañ ci dëkk bi munoon nañu ikkati rek jokko keneen waaye defuñ loolu ñu taana la si naka naka lan moo tax ñu taana la si Ah, waaw tiida boobu moom euh, dina nekk laajte boo xam ne. Mhm. dina yomba waaye du yomba. Mhm. lu tax ma nag mooy parce que euh, nit ñu bëree nekk ci dëkk bi ñoo xam ne xarañ nañ ci musique. Mhm. Ah, xam nañ musique. dunda ko. waaye tamit euh, musique dafa am lu ñu ooyee administration. mooy doxalini musique. naka la moo demee. loolu du maanaam ñëpp ko comme maanaam daal du ñëpp si xarañ. Mm-hmm. Euh, waaye ci biir loolu damaa ne lii ndénkaane la boo xam ne. Mm-hmm. ñi xam ne ñoo yëngu si métier gi Gambie. Mm-hmm. Euh, ñoo ma xool. Euh, ñoo xam daal lu tax ma doylu leen. <laughs> non dara la dara la yow xam nga lu tax waaw ñu jox ma ko. pour daal ma jiite Gambian music. waaye ci biir loolu pour moo la rek dafa am yoon bu jaar. ba Pamo du ñëw nekk président yi musicians union of the Gambia. because dañ de usually music union. dafa amee constitution. bi uh, daf ñu permit pour ñu mun a organise uh, congress mhm. every three every four years at a time mhm. uh, even though léegi change nañ ko to three years mhm. so si loolu nag ñu amoon congress si congress bi ñu dem mun nañu woon a consensus why because dañu waxoon ne dañoo go straight ñu look for president and so on te fekk review in constitution bi te loolu benn benn congress mayewut loolu ak lu mënti bon bon soo leen congress foog ngeen mun a constitution bi seet la baaxoon ngeen ngeen ci bëgg a génne ngeen génne ko ci replace ko something else mm-hmm. so bu loolu xewee nag dañ si mm-hmm. lañ wax ne ok fine léegi comme que duñ mën a select executive bi mm-hmm. léegi dañ select benn five nit ñoo xam ne dañ leen a jox responsibility ñu xool on it as a draft ñu indi ko waat back to congress suñ ko indee back to congress suñ ko adopté dañ ñu def élection dañ ñu move so si biir euh, euh, committee boobu noonu si lañ ma select dañ ma bokk ci euh, foog naa foofu la ma nit ñi gën a xamee yàlla def na nag mhm. boobu ñu ngi ko seexoon ak Jibu Bala Gueye mhm. ah, Killa is ah, ENC mhm. Lizzy ak suma boppa ñun ñoo ci nekkoon yàlla def ñu dem congrès congrès nag ah, nit ñi nominé ma ñu ne dañ a ma nekk président ñu laaj ma ma ne leen aca amoo problème you know nañ ko <laughs> jàmbandoo <laughs> so ñu dem daal you know ma far win élection bi yaa macha allah loolu neex na trop ñun ñoo ko déggandoor Pa lan mooy sa rôle as président waaw su liggéey nag as président dafa yomba benn mooy yomba <laughs> dafa yomba lu tax ma ne dafa yomba mooy euh, parce que soo soo bàyyi administration mhm. euh, soo nekkee at helm of things yow li nga war a def rek mooy nga mun a nekk si kaw nga mun a gis ñëpp lu ñoo def mhm. parce que ku nekk am na responsabilité bu moom mhm. man kenn laa ci am na yeneen eight nit ñoo xam ne ñu ngi bokk si exécutif te ku nekk da nga am sa programme am nañ programme managers euh, am nañ nu mu treasurer am nañ public relations officer urban mhm. for example contemporary mhm. for example am nañ culture mhm. because loolu yëpp ci biir musician union bi la bokk so man damaa make sure ne yow programme yi nga wax ne yooyu nga war a implement man dama war a make sure ne yow nga implement those programmes soo soxlay xaalis pour loolu mu am dama war a liggéey ak yow ak the rest of the executive pour ñu mën a benn proposals pour mën a am xaalis pour doxal loolu waaw su musicien amee problème yow léegi liggéey boobu nga nekk doon dafa yomb waaw no it's primarily <laughs> easy because xam nga um, yow more of what you do is more of to give responsibilities da pare nga follow up on those responsibilities nga make sure ne time bi ngeen stipulate ne time boobu la war a am that time must be respected su ko defee yow nga mun a continuer liggéey but they report to you yow compile the report and report the National Centre for and Culture macha allah ah, loolu loolu neex na rek lañ fi am tey comme ni ko waxee rek ah, ñu ngi programme yi yaa fi toj bi di suma sponsor yi ah, ñu ngi def ba baax jàpp si ba mu dëgër fi ngeen ko jàpp foofu la est-ce que yéen a mi waaw challenges moom su ma la ko waxee wa euh, dima comme ni ma la ko waxee when it comes to admin yomb na. Mhm. waaw challenges moom euh, has a lot to do with musician mhm. pour wax la dëgg. Mhm. pour man musician moo a difficult in this world to liggéey eh, to work with. déedéet kay. waaw loolu naka la wax ñu si loolu waaye. Euh, ba tey tamit ñoom ñoo nekk ñu gën a yomb pour liggéey. Mhm. Euh, lu tax ma wax ne dafa difficult because right now ñu ngi am registration drive. Mhm. registration drive mooy pour make sure ne képp koo xam ne yaa nga yëngatu si musique Gambia. Mhm. muy da ngaa play kora muy da sabar muy da ngaa wëy. muy da ngaa taasu ak loo munti munti def si musique Gambia. da war a ñëw nga register. pour musique yi ñu yëg yow fii nga bokka su ëllëg ëllëg su dara xewee ñun ñu mun laa taxawal. national centre for arts and culture parce que NCS yi tamit. Mhm. ñoom ñoo fa toogal nguur bi. Mhm. so ñun suñu yoon pour dem si nguur bi. Mhm. through national centre for arts and culture. so moo tax ma ne la euh, affaire si. yomb pour liggéey ministres yi because euh, every time. da nga gis ko ñoom ne gaa yi defuñu fi dara. waaw. waaye the thing is waaye tamit ku deful dara tamit ñu wax de. non loolu moom dëgg la ku deful dara ñu ne defuloo <laughs> the problem. Euh, su ma toogee tey ma oote ma musicien si dama leen soxla pour ñu alliance française. soo ñëwee di nga compter ñaata te def lii moo di teng man su ma bokkee ci dara. Mm-hmm. dama war a make sure ne ma mm-hmm. am a true meaning. Mm-hmm. of being a part of it. that means ne. su gaa yi jógee. su ma nekkee musicien buy laal si kaw asamaan si sax. damaa wàccee su ma ba ñëw bokk. parce que xam nga li yow. Euh, mbooloo. mooy doole. tey nit mun ngaa tooli fu la ne. nga demal sa bopp. waaye noo dem dem dem. dina am time boo xam ne il faut nga dellu gannaaw te always dañ dee wax ne nañ moytu lii nag du du mbiri wax comme musicien di si kaw déedéet mm-hmm. waaye lii moo nekk bi nekk di xew te it's important na pour ñu try ñu adresse ko so su ma ne la musicien si dafa difficult to work with mm-hmm. this just one aspect of that ok um, uh, uh, tamit dañ yeetoo de gis artiste gis artiste mm. ñu gis mu toj tamit gis xam rek mm. doo dee mun a understand ki su waxee lii kii wax lii do dee xam ban mooy wax waaye tey Pa Modou mm. lan jël nit pour mu nekk artiste. waaw xam nga art dafa yaatu Tida. Mhm. dafa yaatu trop. waaw man mi tey. Mhm. foog naa ne man li ma dugal si musique sax. mënu ma la mhm. koo wax. Mhm. kenn mënu a wax ne man nangam ma dugal si musique. déedéet kay. because man musuma play instrument before now. Mhm. man damaa xool musicien sa affaire neex ma. ma ñëw ma support la. macha allah mais da promotion la moo nekk. Ah, noonu laa def ba yàlla def ma ñëw bokk si groupe boo xam ne. ne macha allah Gambia bi tey. Ah, waaw ñoo <laughs> loolu dafa leer. <laughs> waaw muy humanity stars. Mhm. Uh, mu nekk loo xam ne yàlla boo ma ma you know yàlla ma boole ma foofu noonu. Mhm. Uh, may jàppale ki nga xam ne mooy suñu manager bi di mbay bi tey. Mhm. Uh, di liggéey liggéey bu rafet nag. di jàppale baan bi. yàlla def fu ñu toll fu ñu toll tey. ci biir loolu nag Gambie bi ku leen xamul dégg na leen. non non non man du ma la na leen ñëpp a ñu xam loolu. <laughs> boobu dina ma ne waaw boobu dina ma ne waaw waaye déedéet ku nekk da nga am origine. te foog nga respect respect fi nga jógee tamit. pour mhm. nit ñi mun laa respect. parce que ku amut foo jógee. Mhm. amuloo fenn foo dem. and that is very very important. so mhm. man when it comes to Gambian music even though def naa suma waar a little bit si Gambian music balaa maa join Humanity Stars. waaye fa lañ ma nit ñi xamee. te loolu mooy dëgg kon da ngaa gis ne euh, liggéey nañ liggéey boobu noonu. ba yàlla def muy tey. Euh, nga xam ne sax euh, ma profité rek wax ne parce que Aliou xamoon naa ne ñëwoon na si show bi. te Aliou ñëw na Mbaye ñëw na. exactly kon da ngaa gis ne. dafa mel ni man gars yi suma waay lañ de <laughs> <laughs> ma ne ko Aliou ñëw na Mbaye Baye ñëw na te tey Pa Modou na. exactly exactly mm-hmm, mm-hmm. so yes definitely uh, loolu nekk na li nga xam ne am na solo trop. si mm-hmm. si man. Uh, mu nekk loo xam ne pour nekk musicien. to be uh, mun nga soo munee play tama te nga mun a bégal nit ñi rek mooy aar xam nga dañ ne aar tiis. tiis mooy maanaam xol bu naxari. ok so su ma munee toog ma ne ok ma def fi loo xam ne yow reeloo na la. kon man keroog nekk naa artiste yow. ok kon ku nekk mun ngaa waaye a am yeneen façon yu fa nekk kii dafa appelé tama kii taxaw am na ko xam ne dafa taxaw benn place rek wax nga ree nga fay xaalis mu dem mu dem waaw waaw liggéeyam muy mhm. mun a def mhm. ba mun cee amee sa livelihood ma mhm. damaa aar daal uh, aar daal mooy aduna mooy aduna waaw ñun ñoo ko déggandoor Pa Modou mu ne aar mooy aduna kon nag aduna mooy aar <laughs> léegi Pa Modou um, gis nañ um, top um, artistes yu nekk fi Gambia um, dañ dee ekatubante mbaga daal understand nga yéen naka ngeen si dee mun a demee bi nga xam ne uh, du andi problème si yéen seen liggéey wala du si andi benn jafe-jafe waaw ci anami musicien bi ma nekk man mm-hmm. utee ak li ma liggéeyam musicien suñu yoon. Mhm. soo ma laajee suma anam yi man suma woo. Mhm. naa la tontu foofu soo ma laajee musicien suñu yoon tam. si musicien yi si musicien yi ñooy liggéey. <laughs> Ah, mhm. loolu laa bëgg a. Ah, na ne. ñu ñëpp xëj nañ si yoon bi. waaye ku nekk dafaa bëgg a jiitu. pour mun a bokk ci ñi ñuy wax. mun na nga understand. Ah, tax na ba eh, fiire wante bi daf day am. waaye loolu moom munuñ ko. fii de wante bi moom war naa am doole ça bul wooree ça bul ah, fi ñu demee stadium tey mu toj fa. waaw beneen artiste nga kur pour ñëw tam stadium. te loolu mooy. the mhm. positive side of it. Mhm. mooy ne. Mhm. suma morom lu def. waaw mun a def lu raw. so foofu la fiiraange bi nekk. parce que fii Gambian musician si man du ma show boo xam ne big musician am na fi show ba nga xam ne invité beneen big musician si réew mi. parce que fii soo mun ngaa compter big musician that's the reality. te ñoom ñëpp ku si health issue léego-léegi nag ñu ne ah diw ak diw nekkuñu in good terms ba loolu xaw a fees tuuti but at the end of the day da ngaa toog kii am dafa am solo trop tamit léego-léegi ñuy create controversies mm-hmm. parce que the more you create controversy the more it mm-hmm. helps you know the whole artistic thing pour mu dem parce que suñu ñu fi ah, everything is okay parce que nit ñi dañ gëm yëfi gossip nit ñi dañ gëm yëfi loo xam <laughs> ay xuloo la ay xee fu mu am rek waaw ñëpp a dee teew ku nekk ah, nga dem seet ah booy snapam lu fa def booy dégg naa saa dafa saaga tee bi ah kele lu tontu yaa ngi dem seet waaw loolu moom te gars yi ah, man xam naa ne ñu ngi see dox mhm. waaw léegoo-léeg tiida ah, xoolal maa yow nañ biir si suuf waaw suñ paree ñu kolante booy yaa gis tee gaay def bi moom boobu am na. am na fiiraange am na ci. waaw gars ñun ñoo déggal loolu ñu ne fiiraange bi moom fo naa fu a la am. faamu fu toj. am na ñoo xam ne bëgg nañoo mel ni yaa fi toj. ah wax dëgg yàlla waaw loolu am na. ma ne ko wax dëgg yàlla te yaa fi toj moom voice out digital rek la. ah mu ngi nii kenn toju fi ñun voice a digital rek fi toj. maa la ko <laughs> na jéem a tag gars yi ah, duñ dara lu ñu dem ci eh, short break ah, suñ si dellu seere mu gën a ne waaye balaa ñu dem si break bi a ah, dinaa jaajëfal suma sponsor yi di APS international ñu ngi si jàpp bi mu Peracles tamit ñu ngi si jàppamem digéer ñoom tamit a ah, ñu ne duñ bàyyi mukk ah, The View Apartment a ah, ti trending am sculpture bi diw culture ñoom ñëpp a ngi si doomi réew mi lañ ñu ñoo fi toj ñu dem si bi rek suñ si dellu see rek mu gën ne salaamaaleykum ana ngeen welcome to another brand new season of the Yafi Touch. waaw Yafi Touch. Yafi Touch. Gambia kii moo fi toj tojaat fi kenn du fi toj moom rek toj rek toj kese xanaa rek jeex na. season two la ñu wax it's your girl Tida DK Badji dara du fi yomba ñun ñëpp xam nañ duñ ko de defee fii si programme Yafi Touch Yafi Touch bi nag bii yoon. Hmm, nar naa saf de ndax dinañ am ay politicien ay artiste designer. so I'm a guitar player. ci guitare bi laay composé samay songs lu ci ëpp. sometimes ma composé yenn ci piano bi. so anytime bu may perform sur scène damay play ak sama guitare. képp ki nga xam ne yaa ngi si biir dëkk bi nga am fi nga toj wala di liggéey lu rafet di liggéey lu nice mun nga ñu contact. yaa fi toj. yaa fi toj. yaa fi toj. comme fu ma. jógee rek laay dellu si Gambia ñu ñor whatever we have Gambia lañ ko dee indi wala suñ Facebook bi Instagram YouTube fépp lañ nekkal fépp fi nga xam ne nit mun na faa gis rek ñu fa nga ñëw toog jàkkaarloog man jàkkaarloo askan bi ñëpp nga wax ñu fi nga toj xanaa du loolu neex na yëpp fii la moo xam ne saa su nekk comme nuñ ko dee defee rek a ah, time bi 8 p.m. fii si Voice Out Digital. Yafi Touch season too on Voice Out Digital. your hottest of the hottest TV show in the Gambia. Yafi Touch ngeen si àndandoo seen xarit seen soppe Tida Badji. Yafi Touch every Saturday ci Voice Out Digital. Yafi Touch programme bi dab seen bannière. ngeen si àndandoo seen star Tida Badji. yaa fi toj yow mi yaa fi toj Paul sponsor by Ams Couture Bidéo Couture The View Apartments T-Trading Pericles APS International your number one choice for international money transfer to Africa yaa fi toj on VOD every Saturday Deko Setan yow mi all uh, welcome to the uh, yaa programme gars yi comme ni leen ko waxee rek ba tey ñu ngi si programme yi yaa fi toj bi fii si Voice Out Digital wax naa leen ne sooy yaa fi bi mooy toj dëkk bi képp ki nga xam ne am nga foo toj rek contact ma wala nga follow ñu suñ Facebook bi Instagram fu nekk fépp fi nga xam ne ñit mun na faa gis nit rek ñu fa nga ñëw toog jàkkaarloo ñun jàkkaarloo askan bi yëpp ñu waxtaan xanaa du loolu nee na luy Voice Out Digital rek la am. ba tey rek ah, ñu ngi am Pa du Sarr ah, Pa du comme ni ma leen ko waxee rek moo nekk président of the Gambia ah, Music Union Pa du mu ngi jaar si lu bëri mu ngi def lu bëri mu ngi liggéey lu nice wax naa ne ko tojut xaw ma si yow dara Modou fii rek xamal ne toj na moo taxit mu a ah, Pa Modou ah, ba tey rek ñu ngi si programme yi yaafi toj bi. waaw ah. Mhm. yow Pa Modou foo tojaangoom sa no man benn toj naa yaafi toj. <laughs> <laughs> ma foofu noonu. <laughs> maa bañ du ma loolu. waaw ñëw si yaa toj bi toj. fii maa fi toj man. yow yaa fi toj man. waaw boobu dina ma ne mu ne moom moo fi toj xam man ku ñëw si toj bi ba wax yow yaa toj rek loolu dina ma ne. <laughs> Ah, léegi Pa Modou. Mhm. Um, ñu dem si affaire international artistes yi ak da artistes ñu am fi Gambia. Mhm. Um, gis nañ ne. Euh, international artistes yi euh, dañ dee am tuuti misunderstanding yenn saa si xaw ma si programme management bi la dee nekk o si seen si seen biir daal because da ngaa gis Gambian artiste bu le mu ñëw tombee bés boo xam ne international artiste baa ngi baa ngi baa ngi war a ñëw mm-hmm. euh, gis nañ fi lu mel ni um, uh, how to call it um, programme bii nii buñ dee def décembre nu mu tuddati. open mic bi open mic bi. Mm-hmm. most of the time daf dee tombe ku waali te nekkut li nga xam ne lu nice la. Mm-hmm. Ah, gis nañ fi for example programme yi Big Faa bi mu ngi war a tombe ak big artist mm-hmm. ñeneen ak ñeneen suñu leen waree compter ah, ñu gis ne yéen bon tànka ngeen si nekkati dox bi nga xam ne. façon yi nii du am because ah, ñoom it amuñ dara lu dul bés bii nii. tey balaa foreign artist di ñëw fii si biir dëkk bi ñëpp di buubu dem foofu noonu. waaye moom la ñu war a célébrer tal benn bés boobu noonu rek la am. Mm. waaye su ñëwee mu ñëw ah, nekk li nga xam ne daf dee dendoo. Mm. bee na bés ba mu waral 90 percent bi yëpp a dem si international artist bi. because neexut tamit ah, every day ñu ngi déglu international artist su waree ñëw Gambie obviously mm. tamit noo bëgg a bëgg a support sa boss dang dee bëgg a dem fële tam because at the end of the day dang dee wax ne sa bos mu fi dina fi dina ñëwati. yéen ñan tànk ngeen si nekk di dox bi nga xam ne comme lii dina nekk li nga xam ne is going to be a de dafa am lu ñu dee ooyee regulation. Mm-hmm. Euh, si art sector bi. Mm-hmm. dañu am regulations. Mm-hmm. unfortunately amuñ any regulation bu wax ne. Euh, dañ war a stop any international artist bu mu ñëw. dafa am yenn satra yi fa nekk yoo xam ne man su ma nekkee promoteur ma bëgg a indi an international artist. dama a dem to the National Center for Arts and Culture. ma declare suma interest na dama bëgg an artist on a specific date. ma communicate ko. te su ma to the National Center for Arts no du free. Okay. Every musician buy ñëw international da ngaa fay. ok foog nga am license to perform in the Gambia mm. otherwise to play. gis nañ fi artistes yoo xam sax ba ci kaw bi. Mm-hmm. ñu arrest leen yóbbu loolu am na fi. tey artistes yu mag lañ. yaa ngi understand so yëpp am na fi. Mm-hmm. Uh, unfortunately nag. Mm-hmm. Uh, ñun most of the time dañoo organise suñu show si. te duñ dem NCAC. pour wane leen ne. ñun dañ bëgg a organise a big programme. Euh, yaa ngi waxtu two instances. Mm-hmm. benn bi moo nekk artiste bi benn bi bu jógee Sénégal. Mm-hmm. ak uh, Gambia dinaa ne Black Link seen open mic festival. Mm-hmm. mu nekk loo xam ne daf day mm-hmm. uh, a a mm-hmm. Uh, ma wax si bu nga xam ne moo nekk open mic festival waaye bi nga xam ne moo nekk for example bi Big Faa bi. Big Faa bi Big Faa dafa bokk si musicians union of the Gambia moom mooy in fact the person responsible for contemporary Gambian music tey. moom moo fa toogal union yi. bi mu demee ba Euh, yala def mu ñëw tombé ñële tamit indi nañ. ñu ngi mm-hmm. waaj a indi seen artiste. Mm-hmm. Euh, kirib karab am. Mm-hmm. faakool ma coow li bëri. coow li bëri faakool ma. Euh, faa tamit. xam na ne dafa war ñëw si bisan parce que ñun. as union ñun tam ñoo ko boot. dëgg so su dara xewee. su si soxlayee ndimbal. dafa war a ñëw su ñun foos. balaa ñu mën a dem somewhere else so mu ñëw. ñu contact gars yi NCS ñu discuss li. pour gàttal wax daal. dox nañ si ay jéego ba nga xam ne nii tey. ki nga xam ne moom lañ doon jëngal ngal jonganteel pour bés yooyu noonu. Mhm. parce que du sax benn bés. Mhm. kii bosam tey la. Mhm. bosam ëllëg. yaa ngi understand. Euh, waaye si discussion bi. dem nañ si ñi nga xam ne ni ñoom ñoo nekk di indi artiste boobu fii. toox na ñoo fa. dem nañ NCAC. amoon fa sax meeting buñ amul. toog na ñu wa dugg nañ suñ cabinet sax. ak fa ñu ak moom. pour wax ko ñun lan lañ foog. you know ñun lan lañ foog na mooy interest am si biir. so at the end of the ñu ñoo amee conclusion yàlla def nag ñi nga xam ne ñoo organise Mm-hmm. ñoom ñëw ne ah, ñoom ñu ngi yóbbu seen bosu décembre. Mm-hmm. so sant yàlla tey. Mm-hmm. dinañ ne faa amatul dat problème. Mm, am na bésam. su bés bi ñëwee dafaa def soo am te kenn du ko waaye tamit li ma bëgg a push as an information mooy. soo amee a big day that you want to celebrate as a musician in the Gambia. it is very very important. nga dem to the NCSC. nga register the date. su keneen ñëwee pour jël that date wala pour book that date with the NCSC. NCSC na lay wax ne yaa ngi understand mm-hmm. su big artiste boo xam ne nag bu Gambia fii mm-hmm. ñun dañ amee responsabilité mm-hmm. pour yaaxa suñu artistes ñoom tam ñu gën fis ci biir loolu su ma xamee ne si weekend bii. Mm-hmm. su NCA si xam nañ ñun xam nañ ne. Mm-hmm. su nekkee ne tiida bi nga xam ne big artist si Gambia bi. mu ngi mm-hmm. organise over this weekend. su beneen artist ñëwee si Saturday bi. nit ñi du ñëw si Friday am bi. wala nit ñi du ñëw Saturday am because because just to give Gambian musicians ñu am that. chance exactly yeah loolu dafa am solo. waaye lii dafa nekk loo xam ne xëy na soo on the street you will not notice. you know xew si suuf. Mhm. because unfortunately amuñu régulation bu ko teg. waaye il faut ñu war koo mun a def. Mhm. pour mu mun a nekk parce que ñun tamit ah. foog ñu taxawal suñu bopp. Ah. suñu aar la gënal. du olof na dégguma boobu. <laughs> <laughs> waaye ba rek ma ko. <laughs> Uh, uh, uh. Ah, léegi ba rek Pa Modou. Mhm. nan la adresse bi mun a def comme ni ko expliqué ba nga xam ne. suy ñu organise soo mun na mu dem foofu noonu dem because am na ñoo xamante ne dañ dee toog rek def noonu rek duñ si duñ si gestuwaat gestuwaat naka la mun a def ba nga xam ne ah, façon yii nii du ko du ko si du ko si dal. waaw this is simple artiste bu nekk daal war ngaa fexe nga am ay management. Mm-hmm. management war nañoo mën a xam seen liggéey. Mm-hmm. nekkul ne gis naa fi musiciens yu bëri yoo artistes yu bëri yoo xam ne ne wax dëgg yàlla. Mm-hmm. <laughs> ne amuñ management. Mm-hmm. te loolu dafa dangereux si artiste. parce que artiste dafa dafa a jël lii as a serious cost to your life. you must be able to put yourself around a management. sa management nag ñoom ñoo war a mën a what is expected to be done. mégal soo nga register with the Musicians Union of the Gambia. by extension nga register with the National Centre for amuñ license to organize the shows. da nit license pour pour pour organiser of course man mënu maa xëy rek ma ne man promoteur la ma dem te aw ma su dara xewee foofu noonu man promoteur bi. Mhm. am na ku fi organise programme nit dee fa xam nga ko am problème. waaw nekkut ko even indi problème boobu de waaye yow mi ko organise because soccer organizing is still illegal because you are not registered to organize any sort of okay. in the country. Mm-hmm. So that is the bottom line. So as a promoter or as a musician, mm-hmm. you cannot put forward a program unless and until you go and register it. Okay. Ak loolu dafa important la. Important na moom wax dëgg ne yàlla ah, ñun ñoo ko déggandoo lii moom xam naa ne ñëpp si jàng tey because man suma boppa jàng naa si yi ne xaw ma woon ne sax danga need a license pour mun a def programme bi. parce que tamit important na because yaa ngi andi ay ñaata doomi aadama teg leen si benn place. Ah, loolu tamit métti na torop ah, ñu ñëw Pa Modou ñu gis ne élection baa ngi ñëw. Mm-hmm. covid bi bu ba tey ñu ngi si covid bi waaye mm-hmm. bi bu mu gën a saf mm-hmm. gis nañ Gambien artistes yi ku nekk jóg na def woy di yeeda ñi ñi raxasul <laughs> oytuma jëla tissu defal bu ñu jox loxo xam nga den élection bi ñëw. foog naa ne dëgg la Covid bi am na doole waaye élection bi tamit xaw ma ñu ko tuutal de waaye man ji Bassène ñun waa Voice of Digital ñun waa yaafi Fi Toj bi tuutale wuñ ko. dëgg artiste bi man suma ma gis-gis. Mhm. foog naa ne mënoon nañuy jóg. di def ay xam nga rek. comme ni ñu ko doon defee si Covid bi. Mhm, mhm. but like none of them nekkuñ ñu def loolu noonu. waaw euh, fiw rek la foog naa ndax ndax am na sax <laughs> because tey ñoom ñoo nekk the voice of the voiceless ñoom ñoo war a génn a wax ak seen fans yi ah nii ngeen naa def ba mun a ah, bañ a mm-hmm. oytu xam nga dugga si yii ak yii nii waaye nekkuñ di si gis dara mm-hmm. waaw euh, dinaa ne mu ngay am sax euh, parce que ba tey time am na xanaa dañ ñu xaat ba décembre na ñu nar ko ah, waaw loolu mun naa nekk <laughs> décembre foot ñu ne génn na waaye to be honest <laughs> um, it's the responsibility of every artist parce que mm-hmm. da am ni ñoo xam ne yow la ñoo déglu loolu leen wax rek jël nañ ko. Mhm. suy fen sax. Mhm. dañoo ne dëgg because dañ la buggal seen boppa mm-hmm. aar moo am loolu mm-hmm. so kon ku nekk nga xam yaa ngi practice in this country mm-hmm. da nga responsibility pour nga make sure ne nga sensitise whether it's going to be on social media su nekkut wéy am na yeneen communication you could actually use it push out an information and that is very very key so da every musician am na responsibility that because pour man people are paying their tickets to come to your shows it is very pour man you pour nga make sure ne that you responsibility to also give them back. Mm -hmm. You know, a lot of musicians are doing some other stuff that is different from the monetary aspect of it because loolu mm-hmm. pour man is the last thing. Mm-hmm. waaye soo xoolee Gambia bi du just Greater Banjul area. Mm-hmm. dañ am the whole country. what are you doing to reach out to those people out there. Mm-hmm. loolu every musicien war nga ko xool ban façon information nga nekk di joxe si élection bi mm-hmm. lan nga nekk di post sa social media mm-hmm. loo xam ne dina njëriñ sa fan base nekkut na yow sa promotion sa promotion it has to do with the people that are enjoying because ñoo ñoo enrich those people are the people that are giving you the money so you have a responsibility to look out to those people as well te dafa am solo so when it comes to Mm-hmm. and then of course incha by December fourth ñu yëpp nañ December fourth la tamit. waaw uh, gars yi comme nu ma leen ko waxee rek ah élection bi jarut ngiroo ngaaru jarut fitna jarut dara ah, ñun ñëpp képp ki nga xam ne am nga voters card ñu laa ñaan nga dem so eewoo eh, sangu ba set nga dem nga vote dellusiwaat sa kër bul xuloo bul xeex bu la ko kenn jaral. because at the end of su gaay wiinee wiin nañ rek dëgg la ah, ñun ñoo fi nekkal gaay tamit waaye tamit ah, buñ nangu li nga xam ne ëllëg daf ñu andi lolaate nañ génn dem vote si jaama nga dugg sa nekk xaar bañ announce suñ annoncé nag waa comme neex nga génn celebrate waay tamit nañ oytu fitna bi because fitna bi moom su ñëwee dina dina yaaxal kii yaaxal kale yaaxal kale te amul benn njëriñ waaw ba tey rek Pa Modou ah, dinañ delluwaat si affaire gam musique bi mm-hmm. um, yéen ndax si bi nii rek ngeen dee gëstuwaati artistes yi ndax da ngeen dee dugga si biir dex bi because ñooñu tamit am nañ artiste ñun dañ dee toog yéen sa nga am ku la koo naan la artiste dama bëgg nga interview ma si suma sa yaafi toj bi understand nga eneen mm-hmm. nga gis ne nga ne ko ok yónnee ma sa song mu yónnee la nga xam ne dëgg-dëgg ak ki lu mu wëy mm-hmm. ka xam waaye dafa nit da exposé pour mu dem waaye ñeneen ñu bëri xamul ñu ko defee wala xamul ban tànk la ñuy jaar. Mhm. waaw euh, am na solo trop because musicians union suñ constitution bi. Mhm. Euh, dañu am structure and structure bi dañu am regional structures as well. Mm-hmm. regional structures yooyu mooy dañu am regional coordinating team. Mm-hmm. Euh, ñoo xam ne dañoo am ñoo xam ne ñoom ñoo nekk di first point of call when it comes to Gambian music. Mm-hmm, from the executive ñun ñoom la ñoo contact. ñoom ñu relay out to musicians yi fa nekk. gis nga géwél buy dem sax si ngénte yi. téye kalaw kalawam wala kooraam di gundum gundum wala téye bongoom. ñëpp ci aar bi leen bokk. so soo nekkee fii wala nga nekk Farafeñ wala nga nekk Basse. because benn ñu ngi am suñ mass registration campaign. campaign bi bi mu ngi ñu indi to KMC. Mm-hmm. ñu ngi ko defoon si Youth Monument. Mm-hmm. ñu invite all musicians yu nekk si KMC. pour ñu ñëw register. Mm-hmm. dinañ dem Brikama. invite everybody ko xam ne West Coast Region nga nekk. nga ñëw register dinañ dem Banjul di same thing dinañ dem uh, Farafenni dinañ dem Jara Soma. dinañ dem Janjanbureh te nañ dem Basse. macha allah so lii yëpp is to make sure suñu regional structures yi are functional. Mm-hmm. because it doesn't make sense nga amee regional structure dara is you know basically redundant. nekk ñu mm-hmm. def dara. that is what is going to take us forward. macha allah aw loolu dinañu neex because ah ñu nit dañ dee gis gars yi wax dëgg neex try. Mm-hmm. waaye dañ soxla pousse bu rek. pour ñu gën a a taaka ah, rek Aida ah, moom mu ngi Versa Digital moo wax ne pour ma laajte la question bi because moom daf si dee sawar. Ah, mu ne lan moo tax ah, Gambian artist comme mun naa la wax ne nu bon bon bon suñ top celebs yi suñ top artistes yi. Mhm. mënuñoo def benn woy boo xam ne ñoom ñëpp dañ koo collabo ñu ñu ñu ñu preach about the election. waaw again rek loolu mun naa nekk. Mhm. in fact pour wax la dëgg loolu even the musicians union mun nañ koo spearhead. Mhm. pour mu happen. waaye ñun moomuñ artistes yi. Mm-hmm. artistes yaa moom seen bopp. Mm-hmm. mun nañ leen ko propose. Mm-hmm. ñu def ko recent ñu ngi def benn on Covid 19. ñu ngi ko ooyee arts uh, arts Gambia against Covid. te boobu ñu ngi jëlee funding from ECOWAS. ak UNESCO. and the money came through the National Centre for Arts and Culture. ñu am all the artistic association. am nañ si Sambu Suso mi nga xam ne woy na ci. woy na ci moom ku ko xamut dégg nga nga ko si Gambia muy muy vétéran boo xam ne macha allah. baatam mi moom. man man su wooyee ma daanu leer. <laughs> ah, ah boobu ñu ñu boole ko nag ak ñaari yoo xam ne Gambie war na leen a bàyyi xel te dama mhm. profité wax loolu fii mhm. benn muy Awa Gambie mhm. ah, Awa Gambie bokk na si compilation boobu noonu ah, mu nekk xale boo xam ne Gambie war nañ ko bàyyi xel trop te xam ne Awa dafa am a future te dafa mun lu moo def dafa soxla a little bit more guidance and support from the nation dañ ñu mun a dem dëgg keneen ki moo nekk euh, Mariama Thiam. ok euh, Mariama Thiam Mariama Thiam moo nekk Ibrahima maa ngi gis yaa ngi amoon mm-hmm. euh, nga ñaari xale mm-hmm. man ok dama dee. sometimes I get jealous you know why. fooguloo ma oo ñaari xale yooyu ñu teg leen. non all ma leen nga teg leen fi ñoom ñaar. ñoom ñaar dinaa def yow soo paree dugalanteel ma leen. non bul wari man soo paree moom naa leen a call ñoom ñëpp. ñoom ñaar yëpp ñu ñëw toog jàkkaarloo man xanaa du kon fii toj. non non non non non non Tida soo amee ñaari xale yooyu. dinaa leen am macha allah dinaa leen am dinaa leen am. so honestly it mm-hmm. like uh, am nañ ko before. Mm-hmm. Uh, te invite nañ artist. Mm-hmm. again li ma la wax rek dafa difficult trop pour deal with musicians. Uh, gis nga dafa am musicians yoo xam ne te lii is not for free we are actually getting paid for this. because ñun we have to be exact exemplary in the use of musicians and their craft. Mm-hmm. So if that is the case, mm-hmm. Bugunyo use what you are doing, mm-hmm. say intellectual property for no reason, from zero. No, we want to make sure that Sonia, Sonia, ah, she, she beat Bini. Then Laura face, aha. Dega. Yeah, I understand. Oh, dega. Aha, bobu nonu. You know, then let's go for royalties. you know soo demee ba dee. Mhm. yaa na ñuy <laughs> yaa na ñuy <laughs> ma ne ko na yi yaa na yi waaye mhm. I know right. Uh, sa njaboot war nañ see mën a njëriñoo. mën a njëriñoo te lii dafa an exemple de thing boo xam ne noonu lañ ko defee. Mhm. so again when it comes to the election. bu nañ ko spare. waaye pour wax la dëgg tamit. koppar mooy doxal yeneen yi. wax dëgg neex ah, yàlla so dinañ seet daal. Uh, waxal ma ay dane. lu wax am na solo trop. waaw uh, su ma fi jógee. dinaa wax ak suma SG. baax na den su ko defee ñu wax ak des. ñu seet how possible this is fii balaa ñu wax ne. dëgg Aida fan naa dégg nga loolu noonu Paa Modou. mu ne dina boobu moom su amee rek na Aida xam ne moo fa jaar. moo fa jaar wax dëgg ne ak man mi ko wax tamit nag. <laughs> waaw mu ngi kon yow jëlal xaaf. <laughs> waaw dinaa jël xaaf dinaa ko jox ma <laughs> loolu Paa Modou mu ne su fi jógee dinañ si gëstuwaati because benn xel mutut mun na yow mi toog fële di seetaan am nga xelaat boo xelaat boo xam ne man mi toog di laajte Paa Modou sa xelaatuma ko ba tey rek comme Voice Out Digital ñun ñëpp la ñuy ñëpp képp ki nga xam ne am nga looy laajte rek jox ñu ko. waaw ah. ah, ba tey rek ah, Pa Modou ñu ngi fii si programme yi yaa fi toj bi di leen fàttali yaa fi toj nag ñu ngi si saison 2 bi wax naa leen ne saison 2 bi moom du yomba ndax képp ki nga xam ne toj na rek dina ñëw Adama Barrow muy président sax dina fi ñëw xanaa du man maa fi toj ka Barrow beneen <laughs> ma ne ko président sax dina fi ñëw xanaa du kon man maa fi toj. ba tey rek Pa Modou ban advice ngay jox doomi réew mi. ki nga xam ne mu ngi bëgg a nekk artiste. Mm. wala foog na ne artiste moom toj na ba pare nii du benn support parce que xam nga na ñoo xam ne dañuy xalaatee noonu da ngaa digg ah booy man toj naa ba pare nii du ma dara. ah booy man nii naa nii waaye ban ah, ban advice nga am pour jox gars yi. waaw léegi musicien moom. Mm-hmm. na nga fexe rek humble. Mm-hmm. musicien. Mm-hmm. na nga fexe nga humble. gis nga pacak pacak pacak bi. baax na si léegoo léegi. <laughs> parce que jamono ji moo ko laaj. il faut nga dugg nga jëmbal. waaw jël jaay bagage. waaw gars yi ne eh, waaye <laughs> exactly soo nekkee in your let's say in your musical zone. Mm-hmm. mun ngaa mel nu la ne. Mm-hmm. waaye boo fa génnee. Mm-hmm. nanga nga nekk ku humble. ku la gis aduna non waaye du kii moo nekkoon si stage bi keroog de loolu dafa am solo trop. benn nit ki nanga nga humble. na am respect. Euh, nanga nga li nga def. te it. ndaw li la yàlla taraal nga bokk ak ñi la jege. Mm-hmm. parce que ñi la jege. Mm-hmm. ñoo ñoo laa mun a puus. Mm-hmm. li ma mun a wax si yow tiida keneen ki ci biir mënu ko te li wax keneen ci about yow te maa jege. loolu moo jël dandi yow. kon dafa am num tuuti tuuti let us still remain with the people that were there. parce que gis nañ fi ñoo xam ne. tey door nañ ñu toj. ñañ tojandoor ñu teg ñooñu. ànd ak ñeneen. ñi dem ba si kanam ñu teg ñooñu it ànd ak ñeneen. Mhm. <laughs> du mujjee de. du mujjee woo so man daal am like be a humble person. <laughs> Mhm. have respect for everyone. it doesn't mhm. matter. the smallest of a person that you meet. lu mu la wax. listen to the person because it's important. there is nobody koo xam ne dina la wax loo xam ne xëy na du la njëriñ. du la njëriñ ak nu mu ndaw xale bi nu mu ndaw ndaw ndaw. so def lii ak lii pay attention. dëgg surtout dara sax waaye consider what he or she is saying. dëgg a la nooy woon. dëgg la ah, léegi Pa Modou dañ bëgg night bi tuuti den mm-hmm. nga ñëw dugga si jibs tamit mm-hmm. wax ñu yëpp meññu si bu nekk tuuti tuuti rek waaw Kids Fashion Night bi moom. Mhm. Euh, dafa nekk euh, maanaam plateforme boo xam ne nii. Mhm. pour xale lañ ko jagleel. Mhm. Euh, di ko def nag ak nga xam ne mooy Tita Dike Badji. <laughs> muy xale bi nga xam ne beneen Tita dafa am ma rek xam nga nga ne yaa toj <laughs> tey mu ne. <laughs> waaw. waaw nekk xale boo xam ne. yàlla def ko def mu bugg a xale. gis nga xale ci man. man ma am doom. macha allah te dama mm-hmm. ko bëgg sama xol bi. ñëpp <laughs> ku ma xam rek. xam na loolu waaw. yeah so uh, mu nekk loo xam ne man su ma gisee nit ku bëgg a xale. Mm-hmm. sa affaire daf ma dee ne. dëgg yaa ngi understand kon suma affaire daf la ne. Uh, waaw yow yow moom <laughs> so mu nekk loo xam ne. Uh, mm-hmm. créer boo xam ne nii. xale yi ci am plateforme pour ñu ñëw. benn seen boppa ñu lu ñu dee am seen self esteem mm-hmm. parce que foog nga jox xale yi boo xam ne mm-hmm. ñoom it dinañ mën a wane seen boppa nekku ne xale bi dafa war a si néeg bi di study di nangam sangam foog ñu war a a génn bokk ak seen morom yi mm-hmm. you a méngul gën a xamante gën a làkkante mais si english la moo wolof man dénka i doom maara waaye ku nekkay ci biir loolu ñu ngi laa aduna woon la sa aada woon la sa cosaan parce que si plateforme bi ñu ngi laa allow nga ñëw nga wane préparation bi nag. préparation bi nag man du ma leen ko wax de moom lay bàyyi mu wax ndax moo si nekk nag. jàpp waaw préparation bi moom euh, incha mhm, du yomba januari du tiida hmm. parce que door nañ di dugg si biir palaas yi. Mhm. nit ñaa ngi ñoo wax leen sax. pour hmm. ñoom ñu def ci dara. wax dëgg euh, yàlla. gis nga soo defut lu baax. Mhm. kenn du la oo na la kaay kon loolu am na solo tiida foofu baax na. foofu baax na fi ñu noo fi ca ah, dafa parce que am na la gaa ngi déglu ma ne ko cat dafa gaaw te Boy Sam digital moom ñëpp a koy seetaan tam ñu ne ah lii mooy seen plan si kids façon <laughs> ñu ngee tooga mm, su mm, ñoree rek su baxee rek xeeñ waaw léegi nga wax si Gibbs tuuti tamit <laughs> waaw euh, Gibbs Voice ak mhm. euh, mhm. transportation mhm. ak parce que ñun dañ am suñu ay euh, trucks yoo xam ne nii dañ dee ply through Sénégal Gambia su ne Guinée Bissau depending yow fi nga bëgg a yóbbu sa nga bëgg a def rek. Mhm. Gibbs Voytech mu ngi fi di la xaar. Mhm. Euh, waaye tamit dañ dee jaay li nga xam ne mooy logistique basic building materials. Mhm. muy ciment. muy basal bi muy béton bi. dañ ko jaay in bulk. dañoo dem jëli ko. Euh, indi ko ku ko soxla ñu ñëw. Euh, you know jox la amoon na tam gis naa sa post nga ne yéen a fi gën a cheap le ciment. ñun ñoo fi gën a cheap le tey ñu ngi jaay 305 dollars si Gambie bi. yéen mi amul benn compagnie bu fi nekk muy ragaluma ko si media bi laa toog. <laughs> Paa Modou ko wax de. maa ko wax. three hundred and five dollars lañ nekk di jaayee yéen daka ko nekk di jaayee. ñun ngeen turu ah, ñun non ñun lañ toj. ngeen moom ak ak ak ban ban ban la si waati ban nga ñu si mayati. <laughs> dama xamul xanaa nga tudd la bëri xanaa nga tudd rek tudd rek ma jaar foofu tuuti la bëri waaye léegi yow Pamod ah, foog naa xam naa question bi waroon naa la koo laajte nag depuis starting bi waaye waaye daf ma daf ma daf ma rëcca ah mun nga ñu wax naka nga commencé ni yëpp Pamod ba ñëw tey toj nii ñëw si yaa fi toj xam nga wanaa yaa fi toj bi comme yombut ñu jég rek ñëw fii waaw léegi naka nga commencé lii yëpp ba ñëw tey si yaa fi toj bi ah, ok man dama nekk koo xam ne man dama passion for stuff. Mm-hmm. dama dee teel a dugg si dara waaye si lu ma dugg rek. Mm-hmm. dama ci dee def comme mm-hmm. euh, su ma ko seexee ak yow. ku nekk si biir su xamul dafaa ne. Paamodu tiira dafa jël pour daf ko si bakkanam bi di ko xëcca. parce que dañu xam ne because nit ki ci loo nekk rek. jox ciir. so man. bi maa dugg si musique dama ko jox ciir. bi ma nekk in the US activité am Chine. Mm-hmm, mm-hmm. dama ko jox à 100% mm-hmm. bi ñoo dem ñun dem nañ eight months Sénégal. maa ngi fanaan si biir troc for eight good months. di nekk si kuwaare bi. di liggéey for eight good months. te maa ngi communiqué yow all the time you didn't even know I was there. dëgg la and kenen a keneen a keneen. wat soo nekkee nit da nga war a am commitment. da nga war a am comme nga am that self respect and responsibility to mm-hmm. yourself. Mm-hmm. da nga am ni ñu nekk mm-hmm. la ñoo déglu. yow la ñoo bàyyi xel. waaye foofu lañ jaar. tey macha allah am nañ logistique company boo xam ne si Gambie bi fii. ragaluma fi kenn. Hmm? te. koppar bu ndaw. lañ ko dooree. ñu deewoo fanaan si kuwaare fanaan si trox yi. macha allah ba tey yàlla def ne. ngeen ah, toj waaw waaw mooy a toj ñu ñoo toj ñu <laughs> <laughs> boobu leneen ak leneen ak leneen it noonu. Mm-hmm, mm-hmm. Ah, si youth fraternity bi nag. Mm-hmm. Ah, boobu tamit ñu ngi yëngatu ci lu bëri. si national front bi of also si international front bi. waaye at the end of the day lu a am solo ah, what can you do for country and not what country can do for you. man that's what I believe in. so it don't matter whether recognized or not. ñu war a def as a people we you know will continue to do that. Mm-hmm. and that is it so uh, di a ak National Federation for Gambia UNESCO clubs and centres. Mm-hmm. and uh, foofu tamit yàlla dimbale ma. dinaa mm-hmm. ne yàlla may na ma. njiit foofu ba ma foofu tam maa faa dem. maa ma yu Pammaru dafa <laughs> yaa ko toj dafa yaa yaa amee caabi bi daal. non kii duñ ko lijjante. xam nga affaire bi yaakaar la tamit. noonu laa ko dee gisee. Mm-hmm. waaye yaakaar bi mënut a fulfill. Mm-hmm. fekk ñu gis ko ci yow ne yow da nga am that commitment to make it happen. so sa surtout position yoo xam ne nii. Mm-hmm. it's not like dañ laa select teg la fa. nit ñi ñoo la xool nga doy ñu sànnil la pour nga toog. dëgg la loolu mbiri politique. dëgg la if know the know how xamuloo di know how. mun nga faa toog one month ba the second month balaa ñoo wax a quarter you are off man nag man am a paper person. just so you know. <laughs> Mm, ñun ñoo ñun ñoo waaw am na voteuse card yaa. di nga vote. dinaa vote incha allah. ok euh, baax na léegi euh, pour ñu tàggatoo because time bi des euh, bëriwut. Mhm. gars yi comme nu ma leen ko waxee rek ñun programme yi toj bi xijal nañ si ku nekk képp ki nga xam ne am nga foo toj rek mun ngaa jàkkaarloog ñun nga contact ñu den ñu invite la wala sax ñun suñ seetee ne toj nga sax ñun dinañ la contact Pa Modou contactul ñu de ñun ñoo gis ne kii daal toj na kii war na ñëw fii tojaat fi moo taxit ñu invite ko ndawi réew mi rek ñu tëjee si loolu noonu. waaw xam nga bale pour artistes yi la. waaw pour artistes yi waaw bii moom pour ñëpp képp mu métti nga ne ah xaaral ma bàyyi. nga noo dee def. waaw loolu moom euh, loolu naa ci kontaan trop tiida mhm. parce euh, ndaw bu ci nekk ci li nga mu di yëngu rek. Mhm. gomal sa bopp. Mhm. nekki soo gomee sa bopp. Euh, dañ dee wax ne ku yàgg ci teen rek baag fekk la fa. soo gomee sa bopp. nga am sa commitment gën see forcer sa bopp dina mm-hmm. tànga dina métti. Mm-hmm. dina am temps yoo ne di nga bëgg a xaadi bàyyi. Mm-hmm. waaye da nga war a gën a gëm sa bopp pour continuer. dafa am so many distractions yu xewul right now si adduna bi. mën ngaa bëgg a focus on something social media du la ko may. foog nga bëgg a jël sa phone bi xool naka la. waaye yaa ngi am a focus yu gara concentrate on. foog nga concentrate ci sa focus. ba pare nga xam ne uh, il faut nga resilient. foog nga nekk dafa forcé ni parce que am na daf am. Mm-hmm. waaw xëy na sa yow nit ñoo xam ne dañu lay xool ñu ne la doo ko mën a def kii moom bàyyi ko copycat la wala nangam sangam wala nangam sangam mm-hmm. concentrate on what you are doing mm-hmm. gis nga bés boo succeed mm-hmm. in fact I don't believe that somebody gets success you know comme ni def day succeed parce que noo noo am success da ngaa bëgg a yokka dëgg so sa success point dafa depend on what you're content with and we are not even content <laughs> human beings we are just not content so ak foo munti toll rek bëgg ngaa yokka dara so doomi aadama man daal dama ne Gambien yi ci loo mun di nekk tey su nekk jaay gerte saaf si mbedd mi sax Mm-hmm. gom ko mm-hmm. gis naa ku jaay gerte saaf jënd kiram mm-hmm. yobu fa njabootam nangam sangam so the same thing gis naa fi taxi driver bu ko def gis nañ fi in fact tuurkati mbalit du ko def and so on and so forth gis ne xam ne dafa toogee téye maay ku ko def exactly gis nañ bu ko def exactly ah? exactly so at the end of the day uh, it's about yow nga gëm sa boppa uh, te always dama day wax ne ñu ñi nga ne ñooy ndawi réew mi nañ gëm suñ boppa ne lan laa mën a defal suma réew not li suma réew mm, maa defar man loolu dama koy always faral di wax mm-hmm, mm-hmm. waaye euh, di wax ñëpp ne Gambia dafa nekk réew boo xam ne mm-hmm. surtout si élection bu ñoo jubli nii right now di ñaan ndaw yi nañ try ñu bokka li nga xam ne nii mooy jàmm ñu saxal ko euh, ndax jàmm mooy yëpp exactly man mun naa bokka si parti bu ma nee ngela amul problème pour mhm. xeex ak i nangam mhm. su ma carte laa am. Mhm. su waxtu saani jotee exactly secret ba loolu la su ma paree dugg si biir. su ma neexee saani la yow su ma neexee saani keneen man I don't mind. moo tax man am naa suma carte ku ma ne am na approche son soo many question da nga war a ñëw bokk a fii nii nangam sangam léegi sax ñu tegal la dara yoo xam nga ma wax ba at the end yow da nga war a xam ne look man mun naa bokk si nangam waaye you know it's my it like it concerns me. Mm-hmm. concerns me anyone else. dëgg la su dem vote damaa dem dugg si kii ba dama votal ki ma soxla. Mm-hmm. ki ma gëm a yor réew mi bu leen mm-hmm. and that is it man loolu laa gëm so loolu mooy nekk suma laa sax. Eh, dëgg ah, ñun ñoo déggandoor Pa Modou comme ni ma ko waxee rek Pa ko bëggee téye tey du baax dinañ am three episodes waaye ba tey rek ah, gars yi ah, Pa ma bàyyi la nga tàggatoo. waaw tàggatoo jaajëfal la rek ci <laughs> euh, for having me of course uh-huh. euh, parce que ñu nekk si réew mi fii ñu toj Gambia mm. dafa bëri no toj nga you know but nga ne ah, xaaral ma jël pambu mu ndam bi la nga xam ne uh-huh. euh, in fact amut moto sa daf dee dox <laughs> loolu taxul de loolu taxul ah, pour mu ñëw si programme bi pour moom mu wax fu mu jaar uh-huh. naka la naka la fa demee ba toolu tey loolu dafa am solo trop loolu gëm nit la bugg a koo dooleel loolu dinaa la si jaajëfal Euh, di euh, ma fi egsee ba tey mhm. you know euh, comme face bu nice rek laa gis mhm. ah gis naa façon face bu nice bu nekk non digital face bu ñaaw amu fi waaw loolu moom leer loolu moom leer na moom wax dëgg yàlla di leen jaajëfal ñoom tam seen liggéey bu rafet bi mhm. di jaajëfal tamit voice out digital seen administration bi from si kaw ba di jaajëfal ñëpp ñoo xam ne ñu ngi tey VOD exactly programme bi di leen wax la ñu leen a jaajëfal trop di leen sant di leen gërëm waaye di leen baalu ah parce que wax neexul léegoo léeg nga jaar foo xam ne xëy na keneen gisee na ko leneen waaye fekk du lu tamit mënoon nañ laa koor rek nga ne ma ah tiida du ma ñëw si programme yi yaa fi toj bi waaye defuloo ko bu ma la koolee fayn nga time ah, neexu tamit toog di wax because mën ngaa wax fi tey li nga xam ne nit mën na la siy mere wala nit mën na la siy bàyyi ndax wax moo neexut waaye defuloo loolu nga jël sa time yëpp nga ñëw toog waxtaan wax askan bi gën a yaatal askan bi ñu xam yow yaay kan te dëgg la léegi nag yaa fi toj bi duñ fi ñëw teg naan foo commencé nii nii nii ñun daal ku toj daal ñoo ñu wax si lu mu toj ñu waaw mooy loolu ah, di jaajëfal ah, suma fans yi di jaajëfal képp ki nga xam ne yaa ngi toog di bëgg a ah, programme yi yaa fi toj bi Ah, di jaajëfal ah, suma sponsor yi du ma taay di di di leen a nuyu ndaxte ah, la ñoom ñoo si jàpp ba mu dëgër Pa Modou mhm. ñu ngi si jàppa jàppa jàppa boo xam ne ay lii man xaw ma soo leen si jàppatoon nu ñuy def am nañ APS international a xaalis bax ñoom ah xarama noofi bala taay moom nga de njee rob de xarama noofi waaye APS ñu ngi si jàppa ba mu dëgër wax dëgg ne yaa dibi buñ jàppee ba tey bàyyi wuñ mm-hmm. nga am pérékul si ñoom tamit ñu ngi fi ñoom si yónnee bi mhm. soo amee dara li nga xam ne da nga koo yónnee si Europe bi wala nga nekk ah, Europe bu nga yónnee Gambia mhm. fii si lu gaaw rek nga jot sa bagage eh, naa leen gis gis leen ñooñu gis leen de ñu ñu jara gis leen ñu jara gis leen den da view appartement ñoom tamit ñu ngi fii si mhm. Gambia bi ñu ngi am appartement bi mu ngi nekk boori Willing Kamba wil appartement ah, bu set bu rafet bu baax xam nga ñun Gambia yi dañ bëgg lu baax te ku ñëw si yaafi toj bi rek da nga bëgg lu baax yow mi nekk Europe wala yow mi nekk Sénégal nekk Gambia sax nga am bés boo xam ne fiiruloo like pour nekk nekk sa kër contactal The View Apartment nga dem seeti gars yi te lu ñu caaj nag bëriwul de Pa Modou dem fa lu nekkaa nekk si biir bi AC yeeg yoo loo xelaat mu si biir bi dafi appartement ñoom ñoo toj de taay yi ñoom la den nga am ti trendin moom tamit mu ngi fi a ah, mu nekk da baaji suma tooma di def lu nice di ñëw lu rafet nga am am scooter moom suma doomi boppa la moom duma ko bokk ak kenn man maa ko jur Amadou saa yu nekk rek ah, a yene saa yaa toj bi damaa toog sa ñu ne ma ëllëg laay sut ma kool ko ne ko Amadou dama bëgg nga ñëwal ma mu ne ma baax na ma dem la maa ooyee te musut maa disappoint yene saa na mu a ma ko mun ndaxte moom rek moo ma mun defal lu ma bugg a. Ah, biddiw culture tamit ah suma magi boppaa ko moom Ami Ndiaye moom tamit mu ngi lu nice. si réew mi di ñaw ñaw yu amul fenn ma ne xanaa du man suma sponsor yaa fi ah, toj di di di jaajëfal suma ah, crew bi ah, Assane moom tamit mooy edit mooy def yëpp da di jaajëfal Youss moom it suma raki boppa moom tamit dafa ñëw teel a ñëw fixe def yëpp ah duma bàyyi impress suma raka moom tamit mu ngi si jàppa ba mu dëgër su nekk nag mu ngi si téléphone bi Aïda moom moom moom suma dem fële suma sëy moom dama ko yóbbu Aïda du moo nekk waaw moo <laughs> sireetin moo si ah, <laughs> <laughs> moom nag pol la lu def mooy dafa sireetin boppa bi ba sireetin ba des mu laal tuñ ba mu ne dafa bëgg a pink lips tey rek ay daa fi toj xanaa du ñun moo Voice of Digital ñoo fi toj ah, moom saa yu nekk si ah, suma am si yaa fi toj bi dina ñëw tëjal ma si doo sol daala bi foog loo nga def ni wax dëgg neex yàlla a ma la amutoon xaw ma nu maa def di la wax thank you so much hmm. di jaajëfal ñëpp képp ki nga xam ne yaa ngi toog di seetaan I am your host Tida DK